ahosbillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim kun fayakun tv ñu ngi leen di siyaare bu baax di rafetlu bu baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci seen bi di leen wax yéen yi ñuy doog a dab ngeen di abonné tey partagé ci seen bi di rafetlu bu baax ci jamono ji waaw jamono ji nag ku bëriwul ñu bëree daanu sa kaw moom moo tax ñu indi leen lii tarjumaan jaa ngi nii sax ñu indaa leen ko billaahi ku liggéey jaan da koy màtt mu faatu wala ku liggéey faatu ku liggéey lu am gàllaaj gàllaaj day delloo si kawam ba pare day am gàllankoor te liggéey bu mu fekk si yow da koy dindi si changé muy nag ñetti aay yoo xam ne ne wala tàmm soha bi in fa yàq sohum asaabun alim sept fois nga koy bind set juróom-ñaari yoon lan koy bind boole kook lépp loo xam ne dafa bokk ci guy guy garabu guy boo amee xob bi wala xas mi nga boole ko moom sangoo ko juróom-ñaari fan xaw a baxal tuuti saafara bi wallahi ku la liggéey ni mu delluwaat ci kam wala ku la liggéey day faatu jaan da koy màtt mu faatu mooy secret bi dëgg-dëgg ku la liggéey jaan da koy màtt mu faatu ولا تمسها بسوء فيقسم عذاب خريب wala tamsuha bi su'in fa yaqsuhum azabun yawmin azim nga xool ñett ñett yi ñoo ñëw rek si arxuraan arxuraan ba mu ba jeex tàkk tàkk ñetti aay yi doo nga si ñëw nii wala tamsuha bi su'in fa yaqsuhum azabun alim wala tamsuha bi su'in fa yaqsuhum azabun xarib wala tamsuha bi su'in bu nekk juróom-ñaari yoon nga koy bind boole ko loolu lu bokk ci guy ama amal xob bi wala nga am xas mi waaw foo dem dañ koy jaay boo ko mënee xasal sa bopp te moo gën ku la liggéey jaar na koy màtt mu faatu te ku la liggéey bu la boo xasee ba sangoo sax liggéey bu mu fekkoon ci yow ay at da koy dindi ci sanse waaw sangat bi ñetti fan la wala juróom-ñaari fan par guddi nag lañ koy sangoo ndax lépp loo xam ne ne kaaraange la ak luy dindi kenn du ko sangoo mm, ay bëccëg wala ay suba guddi lañ koy sangoo nga xam ne boo ko sangoo rek da tëdd boo tëddee boo yeewoo nga génnee sarax bii nag moom boo ko xasee nag ndax dañ siy bind sax ndomba am na benn ndomba goo xam ne ne doon ko siy bind ndomba go boo xasee tàkk jëratul ngay ragal dara dafa am beneen bu muy àndal leneen lu mu àndal boo ko takkee doo dugg kaso nit du mën si yow dara loo dugg génn si kenn du la mën a liggéey te koo jonganteel danga koy man ndax dëdul mën si yow dara ñu ngi leen di jéggalu bu baax